di téere bu gàtt ci ay baat waaye bu yaatu ci ay maani bu bari njariñ ki ko taalif di xujjatul turu rëy la nag xujjatul islam mooy la preuve de l'islam maanaam bokk na ci ñi nga xam ne yàlla may na leen ci xel ci xam-xam ci jub ak ci mbaax loo leen gis rek nekk gañ ca nekk preuve la ne loola dëgg la loolu bokk na ci lu tax ñu tuddee ko xujjatul islam maanaam ku mel ni imam Ghazali doo ko gis ci lu awut yoon loolu nag lu rëy la ndax lislaam soxlawul kenn bu nit amee solo bañ mën koo waxal loolu mooy yàlla def na ci moom ay jagle yu rëy rëy imam Ghazali doon kéemaan ci xam-xam xam-xami jamonoom moo xam philosophie te boobu buñ ne philosophie mathématique ci lay dugg astronomie ci lay dugg xam logique muy mantiq ci lay dugg mayoon ko mayu réere ci littérature ci ilmu alkalaam nga xam ne mooy li ñu tudde théologie ci ilmu tasawuf surtout ci ilmu usulil fiqh waaye nag may yi ko yàlla may ci wàllu yar ruux ci la fës-fës goo xam ne tax nañu fàtte yépp te looloo yeey nag ndax xam-xam lum bari bari su ruuxu boromam yaruwut du xam-xam su mënta yare it xam-xam ba xam-xam bu gàtt la alaaji ibrahima saaxo danaan wax ne mbaax lu mbaax baax su yemee ca borom mu ne mbaax googu mbaax gu bon la ndax mbaax dafa wara a jéggi borom ki taalif téere bi kon mooy al imam abu hamid mooy dàkkantalam turam mooy Muhammad turu baayam di Muhammad turi maamam di Muhammad turi maamaatam di Ahmed foo déggee Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali mooy al-Ghazali mu mag mi foo déggatee al-Ghazali xamal ne kii lañ ko tuddee mu casaanoo nag fu ñuy wax tuus baayam teel fee jóge waaye ngéeju woon mook mbokkam Ahmad ñu jàng yàlla dimbale leen ñu jàng ba géeju yàlla booleel ko gannaaw njàng ma xel mu réeréere mu mën a mokkal waaye mën a jàngale wax naa leen ne bokk na ci li sabab mën a mokkalam Bus, dafa nek di tukki ay bandi dogale leen jël seeni bagage ba muy saraxu pour ñu delloo ko bagage ci la ki yilif gang bi laaj lu tax ne anu ko ndax li nga jël li ma jàng yépp da cee nekk mu ne ko ban xam-xam mooy xam-xam boo xam ne suñ ko sànni woon dootoo ca xamati dara daal di ko sànni sàg ba nee na mu ne kii de xam naa ne yàlla ko yebal ca la fas yéene ñetti at ya ca topp lu mu jàngoon rek mu fexe ko moo tax kenn melu woon ni moom ci xam-xam ni ma waxee Sali rahmatullah alayhi euh, bu nekkoon di waxtaane mbiram xëy na dana jël xalqa bi yëpp waaye bokk na ci li ñuy jàpp mooy turam ndax du nekk rek ay darsu yu ñuy jàng rek dem damay ñaan ku nekk ci ñun jël ay notes hmm? turam turam turam naka la ndax danaa ko laajtewaat wala sax danañ def ay test yoo xam ne dañuy jël ci liñ jàng di laajte ndax looloy tax njàng mi sax kan moo mën a fàttali turu imam Ghazali Abu Hamid mhm duru baayam Ibn Muhammad Ibn Muhammad maam Muhammad baayam Muhammad maamam Muhammad maamaatam naka Ahmad maamaatam Ahmad am na it frère bu tudd Ahmad frère booboo ko njëkk nag ci wàllu tasawuf waaw ah. mi ngi juddu woon ñeenti téeméer ak juróom fukki at gannaaw gàddaay yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa maanaam four hundred and fifty quatre cent cinquante gannaaw gàddaay yonantu sallallahu alayhi wa nga gis ne bi fi jógeeg léegi jege na junni at ndax tey ñu ngi ci mille quatre cent quarante cinq gannaaw gàddaay yonantu sallallahu alayhi wa sallam bëggee xam nag at moomu ci atum jant bi mi ngi nekkoon mille huit mille cinquante huit maanaam junney at yu teg juróom at ak juróom-ñett ci calendrier bi ñuy wax common era CE ci la juddoo woon am na sax ñu ne quatre cent cinquante et un la juddu mu tombeeg mille cinquante neuf waaye quatre cent cinquante moo gën a siw mu tolloog mille cinquante huit bim fi joge mi ngi fi jógee atum cinq cent cinq maanaam juróomi téeméeri at yu teg juróom gannaaw gàddaay yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa kon ñaataat la jund bu fekkee quatre cent cinquante la judd jóge fi cinq cent cinq kon moo ñu mën a dimbale ñaataat la dund cent cinquante cinquante cinquante cinquante cinquante cinquante cinquante maanaam jaloore yi ñuy waxal imam Ghazali yëpp dundam gi paasewul juróom fukki at ak juróom te loolu kat soo calculer atum weer wi la ndax bu dee atum jant bi mi ngi fi jógee mille cent onze junne ak téeméeri at ak fukk ak benn gannaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mille cent onze boo ko génnee ci mille cinquante huit lu ciy des 53 53 ans yu teg as lëf la dund ndax xam ngeen ne atum jant bi moo gën a gudd atum weer wi yàlla wax na ne asxaabul kahfi sax nañ ca caverne ba ñetti téeméeri at mu ne wasdaadu yokk nañ ca sax tisaan yokk nañu tisaan juróom-ñeent nga déggee ci ne ñetti téeméeri at yoo am ci atum jant ñetti téeméer juróom-ñeent la ci atum weer téeméeri at yoo am ci atum jant téeméer la ak ñett ci atum weer moo tax yonantu sallallahu alayhi bu ñuy wax ne soixante trois ans la dund soixante trois ans ci atum weer wi waaye bu dee ci atum jant bi passé wol soixante et un yu tekus lëf sallallahu alayhi wa kon imam Ghazali mi ngi judd quatre cent cinquante jógee fi ah jógee fi keñ quatre cent cinquante ci hijriya fi ah cinq allah muy mille cinquante huit ci atum jant mi jóge fi mille lan mille cent onze mille cent onze diggante su gàtt suusukat ci la dund gannaaw bu mu waree àdduna yëpp nag diggante tuus gi mu cosaanoo Naysaabuur gi nga xam ne sëriñam bi gën a mag ci wàllu ilmu usulil fiqh ak yakko fala nekkoon di imaamul haramayn al juwayni ni muy demee Bagdad bay jiite nizaamiya nga xam ne tey moo ëpp daraja ci jamono jooju Oxford University ba ni muy xëyee rek ba lépp dem sóobu ci yoonu yàlla ba ni ko yàlla mayee lim koy may ci wàllu xam yàlla ak xamale ko ba liggéey liggéeyam yu rëy yooyu te bokk na ci ci gën a ràññee ko ilmu eh, eh, ixyaaw ulumi diin bu dee ci ilmu usul bokkul mustasfa ak fànn gune ci jamonoom bind na ca ba mu ba yooyu yëpp am ci la dellu ci dëkk ba mu cosaanoo muy puus daal di fa dongom di leen jàngal ba sama borom tabaraka wa taala salaam papi ana ni ngeen ma jëndal balaa moo gaañu dañu ñu bésu altine la jamonoy suba mbokkam ahmad mu ne sama mbokk abu hamid dafa jàpp juli daal di ne indil leen ma sama malaanu càngaay ñu indi ko mu fóon ko teg ko ci ay bëtam daal dina samaan wa taatan li duxuli ala al malik samaan wa taatan hmm? dégg nañ ndigal li te nangu nañoo topp ndigal li pour dugg tey ci buur bi maanaam wuy ji yàlla baat yooyu la wax nee na tàllal ay tànkam jublu xibla nee yàlla yóbbu ruuxam booba fajar gi jeexagut manam bët setagut nee bala mo moo faatu am ku ko laaj ci ñi nekkoon ak moom ne ko dénkaaneel mu ne aleyka bil ixlaas maa ngi lay dénk ixlaas sincérité ak sa borom aleyka bil ixlaas baat boobu ñu ne moom lay répété ba ni mu wuyoo boromam rahmatullahi alayhi wa radiya anhu puus nag ci jamono boobu mooy fi ñu daan wax faris digg boobu di Iran jàpp ba Afghanistan yëpp ci Faris la waaye tey tous géographiquement ngi bokk ci dëkk bii ñuy wax Iran kon ci gàttal kooku moo doon imam Ghazali téere bii nag wax nañ ne dafa am benn dongoom bu ko bind leetar pour mu mu dénk ko ci la ko bindal téere bi wala leetar bi nga xam ne booy xool da nga gis ne ndénkaane yi ci nekk mat na ñaar fukki ndénkaane ak nangam danga de mhm. yaa ngi gis de yi nag dañ ko taytalee ni mais moom ba muy wax bindul dénkaane benn dénkaane ñaar dénkaane ñett waaye ñiy sharxa ak ñi def commentaire ñoom ñoo ko defee nii ngir mu yomb xam naa sax version arab bi laa leen waroon a indil ndax yéen ay làkkikati yaram ngeen ah. lii nii yëpp da ça de imam Ghazali rahmatullahi alayhi hmm. soo ko defee da ngay gis ne ndénkaane bu njëkk bi daf ñuy delloo ci euh, waxyu gi dana ci wane ne lépp a ngi ci li yonentu wax ba pare sallallahu alayhi wa sallam ñaareelu ndénkaane bi dana laal lu euh, lii nga xam ne mooy am solo gi waxtu am solo ñetteelu ndénkaane bi dana aju ci xam-xam ñeenteel bi yërmande yàlla ak jëf gi nga xam ne mooy ànd ak moom juróomeel bi évaluation nit ki fu mu toll war di taqyim di évaluer boppam juróom benneel bi am solo gi yéene am solo juróom ñaareel bi préparer li ñoo tuddee dee juróom bi wëttandiku ak nafeq juróom-ñeenteel bi jëf fukkeel bi bàmmeel fukkeel beeg ñaar wala fukkeel beeg benn xabru euh, fukkeel beeg benn néewal nelaw fukkeel beeg ñaar tudd yàlla fukkeel beeg ñett tahajjud te mooy julli guddi fukkel beeg ñeent conformity te mooy ak topp te bañ a sos ndax diine lépp yiw ci diine mi ngi ci topp li yàlla wax ak li yonantu sallallahu alayhi wasallam waaye musiba bépp musiba mi ngi ci sos alxayru kullul xayri fi fi ittibaa'i wa charru fi ibtidaa'i waaw fukkeel bi ak juróom asharia te loo fukkeel bi ak juróom benn pas-pas bu mucc te wér fukkeel bi ak juróom ñaar ak ànd fukkeel bi ak juróom ñett am guide spirituel bi ñoo tuddee sëriñ Fukel bi ak juroom referral lo am solo la ñaar fukel bi mooy dana wax ci laaj and rational questions ñaar fukel bi ak benn bi ak jaamu devotion wala devotion ñaar fukkel bi ak ñaar naka lañu safara safara xol bu febar dana ci tuddu ñenti yef ñaar fukkel ba ak ñet dana wax ci importance of contemplation ndax dhikr baxna waye fikr lu am solo la ñaar fukkel bi ak ñent ad dua muy ak muy ñaan muy ñaan ¿Mm? Muiñán. Ajá. Con Nangyu. لنا بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أيها الولد المحب العزيز أطال الله تعالى بقاءك بطاعته violin gen hol angle bi bëgg li mu bëgg li mu wax foofu mooy dafa ayuhal waladul muhib yow sama doom ji ma sopp te ma sopp ko manit al aziz mi cher lool ci man ataala allahu taala baqaaka bi taatihi na la yàlla na yàlla guddalee sa topp ko parce que gudd fan gu amul gu àndul ak topp yàlla kat amul njëriñ wa salaka bika sabila ahibbaihi hmm? te yàlla na la yàlla sóob ci yoonu ay soppeem my dear son may allah subhanahu wa ta'ala grant you a long life as his obedient servant and may he place you in his service alone wa salaka bika sabila ahibbaihi and may allah wa ta'ala guide you to the right path of those who love him and are loved by him. Muneko hamal anna xamal anna manshura nasihati yuktabu min madin risalati alayhi salatu wasalam know that real advice should be sought in the mine of revelation and the sunnah of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hmm. Muneko hamal ne ko ne ak laabiir wala eh, laabiir dëgg dëgg dëgg la ca am solo ci yonentuk yonentu gi lañ koy jëlee sallallahu alayhi wa sallam ci yonentak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wala ci mbellitu risaala yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw dëgg-dëgg mooy li yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi bu kuy laaye biir ne nanga ko laaye biir loolu mu ne ko in kaana qad balagaka minhu nasihatun fa ayu xaajatin laka fi nasihati su fekkee ne nasiha yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam jot na la kan laaye biir nga soxla ci moom manam su fekkee ne li yonent bi indi jàng nga ko loo may laajee xalaat ban ban conseil nga soxlaati ku jot conseil yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa illam lam su fekkee ne nag laaya biir yonent mosut laa jot fa qul lii wax ma maada xasalta fi hadihi sinin almaadiya wax ma lan nga lan nga am ci at yi weesu su fekkee ne yow li nga dund yépp amuloo accès ci lay biir gu mag gi di jàngale yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ma bon lan nga nekkee woon ne dund moom euh, defuloo ko ndax dund dëgg-dëgg mooy dunde njubal yonentu bi sallallahu alayhi su fekkee ne yonentu sallallahu alayhi li mu wax dégg nga ko jarul nga may laaj doy na laa biir su fekkee ne déggoo ko wax ma lan nga am bon lan nga liggéey ci sa dund waaw conseil bu am solo la even advice from the holy prophet sallallahu alaihi wasallam to teaching has reached you what need have you of my advice and if not then tell me what you have attained in these past years man de xawma ku jàngalem yonentu sallallahu alayhi wasallam jotut lan nga jàng lana la jot hmm? boobay bu njëkk bi ñaareel bi mu ne ko ayyuhal waladu min jumlati ma nasaxa bihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ummatahu alaamatu icraadillahi taala an al abdi ishtigaaluhu bima la yaani bokk na ci li yonentu sallallahu alayhi wa sallam laay biir aw xeetam mooy laay biir gii mooy calaamatu icraadillahi taala an ilabdi ishtigaaluhu bima la yaani siñ màndarga bi wane ne yàlla du mooyu na ab jaamam mooy jaam bi di soxlawoo lu ko concerné ci lu sa xamal ne yàlla la ku yàlla jox një The sign that Allah Tabaraka wa Ta'ala has turned away from his worshipper, his servant, is his busying himself in something that does not concern him. Yonentu sallallahu alayhi ci ne min mar'i tarkuhu ma la na ci rafetu nit ki mooy mu bàyyi lépp lu ko concerné wut waaw waaye dañoo nekk ci jamono nag distraction we are so distracted ba nga xam ne nekk ci lu ñu concerné sax daanaka duñ ko mën wate léeg-léeg nit ne ah, ah, application yi ci kii pour ma Uh, improve sama alquran dama lay wax ne ah man de su doon man da ngay wut eh, eh, eh, a hard copy ndax téléphone yi boo dee jàng alquran da ngay commencé rek notification yi commencé message whatsapp fii message leneen ak leneen ak leneen before you know temps bi yëpp dem before you know da ngay fàttali ne sax yaa ngi doon jàng yaa ngi ci leneen ki leneen moo tax sànq maa ngi wax ki soxna Ndey Faatu bi doon laaj suratu Muhammad sallallahu alayhi wasallam li muy wax bi ñu ma ba ca mujj de ñun lay waxal wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum su ngeen dëddoo su ngeen joxe gannaaw yàlla su ngeen bàyyee li ngeen wara def nekk ci leneen lu dul li ngeen war a nekk mu indi ñeneen ñu remplacer leen ci farata bi ngeen war a taxawee te jamono bi ñu toll farata gënul nekk farata taxaw suñu mbokk yi ca Palestine ya ca Gaza ñu bari xëy na def nañ waaye mbir mi bu yàggee rek dafay dem ba mu mel ni lu normal la loolu nag musibala la waaye jamono bi yàlla dafa mel ni daf ñu remplacer ak le mouvement euh, estudiantin bi jógee ca Columbia te xam ngeen Columbia University euh, université bu am solo la ci wàllu googu xam nga euh, daanaka bari na lu soppeeku ci Amérique yëngatu étudiants yi moo ko soppi xam nga jamono Vietnam war bi booba dañ doon obligé bépp étudiant bu am defe naa vingt jàpp vingt cinq ans bu ñu kiiwee sa tur génn rek da ngay dem étudiant yëpp génn ba gannaaw ga yëf ëpp loxo ba am ñuñ ca rey sax bi National gad bi génnee te tey jii am na ñuy wax waxi dof yooyu ne nañu woo National Guard bi ñu intervene waaye fu ñu mujjee dañu mujj ñibbisi naka noonu bi ñu reyee docteur Martin Luther King hmm? naka noonu année quatre-vingt yi apartheid bi amoon euh, Afrique du Sud nga xam ne Amérique daf ko d'accordoon Grande-Bretagne d'accord ko ñi étudiants yi génn ba ni yàlla di soppe fi fii tamit am nañ ci yaakaar ne yàlla dana soppi fi waaw ndax yàlla exposé na Israël ak Amérique ndax bu leen fàtte ne yi ñaxtu bi ñuy ñaxtu seen université yi ñoom dañoo bokk ci ñiy investir ci barab yi nga xam ne ONU ci boppam sax dafa wax ne Israël waru fa dem te tarewul ñu ngi fay tabax ay colonie ci biir Palestine ay milliards et des milliards de dollars lañ fay investir nga xam ne kon Israël bu leen jàpp ne rek ay juif la wala ay zioniste yu ñëw dëkk déedéet colonisation la Occident ci boppam niñ defoon Amérique mu réussir def ko Australie def ko Canada remplacer ña fa newoon ci lañ ne pour def ko Palestine li ci doy waar nag mooy jamono jooja caméra yi ak téléphone yi amuñu woon tey nag ñëpp a ngi jàkkaarloog lépp moo tax yàlla exposé leen ñaan sama borom tawfiqal étudiants yi tawfiqal ñiy taxaw yëpp ah xam ngeen ne ñu ngi wax sax ndax. duñu issue warrant international warrant against Netanyahu ba ma ngaa salit waaye yooyu yëpp liggéeyu yàlla la waaye terewul ku nekk ci ñun war naa gën a taxaw nag ñu ñaan sama borom libere Gaza ak Palestine yëpp def jàmm ca Sudan ak dëkk yi am jafe-jafe yëpp ci àdduna bi ci barke yonantu sallallahu alayhi wa sallam ah. daal lu mu ne rek dafa war a nekk lu ko amal njëriñ nee na wa in imruun wa in imruun dahabat min umrihi fi gayri ma xuliqa lahu la jadirun an tatula as xasratuhu waa kay nit ku dund eh, nit ku passé lu mat waxtu ci dundam ci li ci loo xam ne bokkutoon ak li tax ñu bind ko Neneku ku yeeyoo ak rëccu aku perte gu yàgg nga ko waaw boo bëggee gis koo xam ne dana yàgg pertam dana sax seetal ki nga xam ne toog na lu mat waxtu nekk ci lu taxutoon ñu bind ko la ilaha illallah ku nekk ci ñun mën naa laaj boppam tontu boppam ban pourcentage la am ci lii mu teg ca ne wa man jaawaza al arbaina wa lam yaglib xayruhu charrahu falyatajahaz linnaar sorry to interrupt maghrib jot na New York maghrib ok let me see parce que ñun defe naa ci jàkka ji léegi azan yes ñu ngi fëgg sax ok ñun waa jot na ñun uh, dix minutes après azan la ñuy mu ne ku dund ñeen fukki at wala ku ko romb te yiwam notut ayam ne kooku mën na préparer place am safara wal iyaadu billah mu ne nag this piece of advice should suffice the people of knowledge wa fi hadihi nasiha kifayatun li ahli l ilm xaw ma ban laa biir waaye laaye biir gi nee na euh, doy na képp koo xam ne bokk nga ci ñooñ xam xanaa ñu mm-hmm. julli ñëwaat